طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الإمام الموفي المحمد الإمام الحميدي رحمه الله محمد بن زبير رحمه الله رحمة واسعة دفن السنة عندنا ولا من أصول السنة كرو خون نانتي سوني درب درس بي سنة تيرم بي مينكو أصول السنة ني وخون أصول لمتي نام موي قواعد عامة ييغا خامتاني عليها تنبني وتعتمد عقيدة أهل السنة السنة متفي هي السنة التي تطلق مقابل البدعة xam nga waxoon nañ ne sunna am na ay taarif yuñ koy taarif ay façon yuñ koy leerale bu fekkente ne da ngay xool ci ulama ul fiqi wal usul ñoom dañuy xool loo xamante ne yasluxu an yakuna dalilan yustanbitu minhu al xukm min afaali rasul sal allahu alayhi wa sallam wa aqwalihi وتقريراته ما هو صالح لان يكون دليلا نيوم لول لا ني خولي سنه بودي نك نيغا خامتني اهل الحديث نيوم تي نيانت مير لا نكوي ديلو الفعل والقول والتقرير والوصف الوصف اما ان يكون جبليا او يكون خلقيا مي بو فكنتني في بو خولي تي اطلاقات ني اطلاق سنه الامام مالك رحمه الله دنجكو لاج ما السنه من السنة ما ليس لها أو ما ليس له اسم إلا السنة لا جهمي ولا رافضي من السنة ما يلوخ أن منوكو ملا لن لدو السنة من الذي تدو بالن بني وان لن لن نموتي السنة من لا جهمي ولا رافضي خمغا فوف وقتن يلوخ أن يتعلق بأفعال الرسول مي ميغي وقت منهج لا يوخ ميتيون موتاخ بني تعرف في السنة دنكو تعرف تعرف بي المنهج وطريقه المنهج والطريقة مليون ويغا خمانتاني كلا يونتو عليه الصلاة والسلام دارو لك أي أندلوم موتخ كمنا الإمام نرجب وخني سنة بنكو وخيش إطلاقات السلف لنك نمو موي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي سار عليها هو وأصحابه السالمة من الشهوات من فتن الشهوات والشبهات من يكون فوف الطريقة التي وخ التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مليون بيونتو عليه الصلاة والسلام دارون مم أك أي صحابة mu nekk damima bu am solo muy dolli biñ ci dolli ne mum jaaroon ci moom akay ay àndandoom li tax mooy boo xoolee li yàlla subhanahu wa taala wax ne wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi gayra sabili almuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira borom xam dañuy wax ne foofu lu tax rek mu ne wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda te doyloowul loolu mu daal di ciy teg ne wa yattabi gayra sabili almuminin ndax sabilul muminin moy appliquer moy pratiquer lolu nga xamne mom la yonente bi alayhi salatu salaam indi won sabilul muminin mom mokay concrétiser mom mokay jëfe légui lolu limi tekki moy nit ki mën na dellu ci li nga xamanteni jàpp na ni ci yonente bi alayhi salatu salaam la jógee mais xata bi mi ngi nek ci application bi fofu la dellu ci li sahaba yi nekkon am solo ndax ñom ñoo jëlé ci yonente bi alayhi salatu salaam li théoriser appliquer ko ci façon bo xamne mom la yàlla gëreum lolu liñ ciy déggé mooy isaabatu muraadillahi li alshafii waxoon ne amantu billah wa bima jaa an illah ala muraadillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muraadi rasulillah mooy al ibra bi isaabati muraadillah loolu moo am solo mooy li yàlla namm ci mbir mi nga dëppoog loolu conformé wu ak loolu saxaaba yi loolu lañu ëppalee keneen ku dul ñoom ci waxyu bi mooy ñoom dañ koo dund jëfe ko ci façon bi yàlla gërëm léegi nag nit mën na ñëw jël wax interpréter ko ci beneen façon génne ko mooy li ma doon wax keroog suñ dars bi weesoo ci liñ tuddee ay aqayisa mooy ay nattuwaay yoo xam ne nit ñi dañ koo jël sukkandiku ci bam génne leen ci muraadullah mooy li yàlla namm ci waxam te loolu la ñuy faral di junj ci li nga xam ne moom la abdullah ibn abbas waxoon bi ko omar ibn alxataab laajee ne ko kayfa taxtalifu hadihi al umma wa diinuha na وكتابها واحد ونبيها واحد نكلا خيت بدي ووتي تسين دين بن لا سين يونت بن لا سين تير بن لا مون يالا دا فواتي سنين القران ني جانغو فو گم كو خم سي لان موتاخ يالا واتيكو دي لن ديم با جامونو اي نيت نيك في دي جانغ القران گم كو تا خمو ني سي لان موتاخون يالا واتيكو مون فا يكون لكل واحد منهم فيه راي اذا كانوا كذلك اختلفوا وتقاتلوا ولا فتقاتلوا Abdallah ibn Abbas ne ko yàlla dafa wàcc ci ñun alquran ñu dégg ko xam ko xam li ci yàlla nam ay nit dinañ ñëw di jàng alquran gëm nañ ko bëgg ko jëfe mais xamuñu lu ci yàlla nam mooy xaraayin yi nga xamante ni moom la saxaaba yi xamoon ci mbiru alquran ba aaya bu nekk ñu xam li ko taxoon a wàcc ak fi muy dugg ak fi mu dul dugg loolu day dem ba réer ci nit ñi bu ko defee dañuy jël yàqu alquran bi rek di ko yóbbu ci lépp luñ ko mën a déggee ñu yóbbu ko ci loolu léegi nak lolu moy indi réer gi motax kon jël li yonent bi alayhi salatu wasallam jàngale ak sahaba yi ñom niñ ci nekké won sen mbolo muy seenu mbolo di sen ijma ñu andando àndandoo di ko jëfe yàlla gërëm leen ci kaw lolu nga bolé ñaar yoy lolu motax ci hadithul ghuraba biñ ko laajee man hum ya rasulullah bok na ci riwayat yi daf ne ma ana alayhi al yawma wa ashabi wala ci hadith al firqa al najiya muy wa taftariqu ummati ala 73 firqa mu ma ana alayhi al yawm واصحابي wala man kaana ala misli ma ana alayhi al yawma wa ashaabi loolu moo tax kon sunna fii liñ koy tekkee mooy yoon woowu nga xam ne ci la yonent bi alayhi salatu wasallam jaaroon ak ay saxaabaam mu nekk tekkin boo xam ne bu yaatu la mais tekkin la boo xam ne tamit dalay wan fan la ahlu sunna jóge bu ñu waxee ahlu sunna ci sunna bi lañ koy delloo mooy sunna bi nga xam ne sunnay topp la mu ne an yumina rajulu bil qadar subhanallah góor gi tàmbalee ko awal ma dakarahu masalatu al qadar lan motax ndax da fay delu ci ne masala la boo xam dafa sensible te dafa bok ci particularité wu ahlu sunna mit gëm guñ gëm ndogal mais naka lañ koy gemé gor gi rahimahullah tafsirul trop parce que nekul won sen manhaj mais bu ne an ar rajulu bil qadar kimi waxal xam lan moy gëm ndogal lolu doyna mais buñ demee ba jamono nit ki xamatul lan moy gëm ndogal moy lan la wara def pour ñu wax ne gëm na ndogal boobaalee laj nga tafsiral ko iman bi kayfa yakunu hadha al iman من يوم في زمنهم ما كانوا بحاجة إلى تفصيل كيفية هذا الإيمان كيف يتم الإيمان بالقدر لم يكونوا بحاجة إلى هذا وفي أيامنا الناس بحاجة مفتقرون إلى هذا الله المستعان سنجمون جيبوني أن يؤمن الرجل بالقدر نتكدنا كيف لك لي جمع قدر لك لي جمع دوغل أن يؤمن الرجل بالقدر القدر الإمام الجرجاني دفكوتيكي التعريفات déglu leen bu baax taarifam bi nu mu doyee waar ak lenn lu ci nekk loo xam ni am na ñaari taxawaay yu ci am bayna ahli sunna muy alqadar wala da ngay dégg ñaan alqada wal qadar ndax am na farq bu am bayna alqada wal qadar ñaari madhab la ñaari qawlu la ñenn si ñoom dañuy wax ne alqada ak alqadar benn la amul différence te fiilan boo delloo ci texte yi doo gis du la may nga mën a séparer seen diggante am ci ñoom ñu wax ne alqadar sabiqun lil qada سابق للقضاء لولو دنيت نيو غور رحمه الله لا وخ دفن القدر هو خروج الممكنات من العدم الى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء والقضاء في الازل والقدر فيما لا يزال رحمه الله لي دا فام نياري مرحله دو ايتاب تي قدر بن ايتاب بو نجهك بي موي ايتاب ما قبل وجود الكائنات بين إتاب تلس موي إتاب ما بعد وجود الكائنات مو إتاب بنجك بموي لا تيال دي ساك من دي أك إتاب بيشتوك موي جنا بيال ساكين من دي في قدر مو جيتو من دي نك قدر ميجي دلو شي خم خمو يالا فوف دلو شي خم خمو يالا فلا قدر دي دلو خم بي يالا خم بيري جنا بي مو بيندو الإمام الشافعي رحمه الله وقلنا إذا حاجكم أهل القدر بالقدر فحجوهم بالعلم ني داك ندوغل بو ني نيوي دي داك سانت اك يين سي ندوغل داك سانت لين اك نيوم سي خم خم ندخ يالا خمنا ولا خمول ندخ قدر لب سي خم خمو يالا لاي ديلو الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ان ذلك في كتاب بوب مو نياريرو مرحله بي موي مرحله الكتابه marxalatul kitaaba boobu mooy ginnaaw bi yàlla bindee loolu comme ñëwee ci xadis bi yonente bi alayhi salaam wax ne inna allaha kataba maqadir al xalaiqi qabla an yaxluqa alsamawati wal arda bi xamsina alf sana cinquante mille ans muy juróom fukki junni at laata yàlla di sàkk mbindeef yi ci la yàlla bindoon li nga xamante ne bi mooy seeni ndogal muy lépp luy xew mu ñëwaat tamit ci xadisul qalam ne awalu ma xalaqa allahu al qalam qaala lahu uktub qaala ma uktub qaala uktub al qadar اكتب القدر لا وخ تينا رواية موني اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة دافا وخون ني ليال نجك بند موي خليمة خلاف ام بين اهل السنة كي قد خليمة غوغو اك العرش لن موجد ndax li tax mooy wa kaana arshuhu ala lma xam nga ahlul yaman biñ ñëwee yonente bi alayhi salatu wasalam ne leen nañu nangul yàlla ñu ne nangu nañ ginaaw bu mu ko arbee ci banu tamim ahlul yaman ginaaw bi biñ ñëwee dañ doon laaj yonante bi alayhi salatu wasalam ne ko jinaa nasaluka an awali hada al amr qala kana allah wa lam yakun shay'un gayruhu wala kana allah wa lam yakun shay'un qablahu thumma khalaqa al khalq yàlla rek moom moo fi nekkoon leneen lu dul moom nekku fi woon yàlla soog a sàkk mbindee fi ci xadis boobu daf ne wa kaana arshuhu ala al maa kon limi tek ci moy arsh la yàlla ñëk sak ci univers bi mom la ñëk sak ci ñom mo des nak léegi arsh ak xalam bi lan mo jitu li gëna wér moy al arsh mo jitu ndax bimu waxé ne awwalu ma khalaqa allah al qalam ci benen riwaya daf ne awwalu ma khalaqa allah al qalam qala lahu uktub mu nek ñaari maana yu bokul benn maana bu njëkk bi awwalu ma khalaqa allah al qalam moy li njëkk li yàlla sak moy al qalam wala nga ne awwala ma xalaqa allahu alxalam bi yàlla di soog a sàkk xalima bi daf na ko bindal léegi bu dee da nga ne li yàlla njëkk a sàkk mooy xalima gi awwaliya jooju awwaliya nisbiya la du awwaliya mutlaqa awwaliya nisbiya ay bi nisbati lil kawn bi nisbati li hada al kawn boo ko delloowaatee ci mbindee fii ci univers bi li ci njëkk yàlla njëkk a sàkk ci mbiram xalima la kon bu boobaa nekkatul awwaliya mutlaqa kon dootul am taarud ak ne arsh moo ko jiitu foofu problème amatu fa kon nga gis ne li jiitu mooy xamxamu xamu yàlla ginnaaw bi bind xamxam xam boobu soog a ñëw loolu nag ci yàlla lay dellu ci ne yàlla dara ump ko xam na lépp loo xamante ni dafay am ci mbiru jaam bi laata muy sàkk jaam ñi fekkoon na mu xam lépp ginnaaw bi mu bind ko léegi nag góor gi rahimahullah fii al imaamul jurjaani ci téereem boobu di taarifaat dafa wax ne xurujul mumkinaat min al adami ila wujud xam nga dafa am lu ñu tuddee adam ak wujur uslub bi mu jëfandikoo nii dafa nekk lu xaw a problématique ndax li tax mooy dafa am ñu si juum ba tax bu ko bu ko jëfandikoo wuloon moo gënoon ci moom mais xam nañ lan la ci jublu ndax dafa am lu ñu tuddee alamul adam ak alamul wujur daa am loo xamante ne amagul léegi loolu amagul dafa am fu mu nekk ak li nga xamante ni moo am mooy li existé léegi bu mbir di am moy li jóge ci ñak am ñëw dugg ci am moy lo xamante kharaja min al adam ila al wujud kon kharaja min alam al adam ila alam al wujud léegi nak fofu nga xamante moy marhalatul adam ndax marhala boobu marhala haqiqi la wala la loolu nga xam mom la wax fii ne khurujul mumkinat ba fa batu mumkin ihtiraz la qayd la nañ déglu bu baax batu mumkin bimba da fay nek muqabila الممتنع نحن بني وحي الشيء الجائز والممكن موي ما أثبت العقل وجوده ولا يمنع من وجوده أو ما أجاز العقل عدمه ولا يمنع من وجوده موي لو خمنتني خل نانغونا أك منا نيكم نانغو تميت لغا خمنتني بي موي نياك منا نيكم لولي تبي ممكن موي لو منا نيك كم لو منتنا ما نياك نيك لو خمنتني بي نك آه، منع العقل عدم واثبت وجوده لو لم الواجب موي واجب الوجود كوكو موي يالا لو خامتاني نك خيل دا فا نانغو خيل دا فا دا فا دا فا دا فا اك امام جاب اك نياك امام لو تودي الممتنع ممتنع في من نار ممتنع لذاته اك ممتنع لغيره مي لول موي بو خاج يي ام يي ام يي ام اك يوي ييب سي كادر با نغوخي دوغال اموك يالا لو مونتا نياك لا فاو ريفورم نيكو واجب الوجود mbindeef yi ay mumkin lañ leen di tuddee mumkinul wujud wala jaiz mooy lu mën a nekk comme lu mën loo xam mën na fee bañ a nekk tamit. moo tax mu jëfandikoo baatu al mumkinaat bu ne al xurujul mumkinaat lim ci nama mooy mbindeef yi kon yàlla génn na mu ne seenu génn ci ñàkk am dugg ci am loolu la fekkee ndogal mu mel na kon daa am fu ñu nekkoon avant ñuy am ginnaaw bi ñu ñëw ci ak am léegi foofu ñenn dañ fa juum cheikh al islam dafay munaqasha ku mel ne ibn arabi ci njumte lim juum ci wahdatul wujud mooy dafa am luñ tuddee al wujud ad daaxili wal wurujul wal wujudul xaariji dafa am benn am boo xam ne amuk biir la ak am goo xam ne amuk biti la amuk biir ci xel lay nekk làmmiñ dina ko tudd waaye nekkul lu am ci biti amuk biti mooy li am ci biti loo xam ne lu existe la lu réel la amuk biir mooy lu la neex imaginer ko ci sa xel est ce que imaginer bi nga ko imaginer ci sa xel rek dafa tekki ne am na quelque part li ngay jàpp ci sa xel di ko imaginer mu nekk ci sa xel da koy jàpp wala nga ko tudd ci sa làmmiñ loolu yëpp ça ne veut pas dire que lu am la loolu fe benn détail bu sew lañ ciy wax mooy liñ tuddee al ittihaadu fi l wujud mooy ne al ittihad innama yakunu fi daaxil wala yakunu fi l xaarij mooy boo defee séparation diggante ñaari am yooyu muy amuk biir ak amuk biti di nga xam fi mbindee fii daje ak fi ñu séparé woo fi ñu daje mooy ci biir mooy loolu nga xamante ni du lu am quelque part du lu am nulle part amul fenn fu mu am lu dul ci xel la mën a am ak ci làmmiñ di ko tudd waaye bu dee li présenté wu ci biti ci existence bi loolu lu séparé wu la lu xàjjalikoo la boo nee al insaan wal asri inna al insana la fi xusr kalimatul boobu nga wax kalima boobu alif ak lam bi mustaghriqa la dafa nekk lil istighraq kalima jaamia la mooy tudd nga kàdd boo xam ne doomu aadama yépp dugg na ci mais mës est-ce mën nga amal nit boo xam nit yépp dugg nañ ci ci biti est loolu mën na nekk ci làmmiñ mën nga ko tudd bu la neexee nga kalaat ko mais ci biti mënul nekk kon bu dee wujud boobu nga xam ne mooy insaan boo xamante ni nit ñépp ci daje loolu wujud daaxili la mais mënta nekk wujud xaariji dañuy wax ne kullu wujudin fil xaarij fa huwa muayyanun mutamayiz bépp existence bu génn ci biti rek dafa nekk lu déterminé wu loo xam ne dafa euh, singularisé wu par rapport ak leneen lu mu mënta doon ñaari jëmm mënuñu bokk benn wujud mënul am ba yàlla sàkkee mbindeef yi ba léegi bépp mbindeef bu am rek mook moroomam bokkatuñ benn ndox boo ko tegoon fii soo ndoxu nga tibb ci benn kaas kaasu ndox bi nekkatul soowu ndox bi kaas bi existence à part la léegi kaasu ndox bi par rapport ak soo bi mu jóge mooy mënatul nekk ñoom ñaar ñu bokk benn am bu ñu am loolu mënatul nekk moo tax lépp lu am rek lu séparé ak moroomam la léegi nag fi njumte nekk mooy ñu ne al umum min awaaribil alfaaz waa suñu fii moom seytaane day bàyyi ba ñu toog commencé jàng rek mu dem woowu ji ay nit laan leen kaay leen daaj kay leen door fii kay leen indi leen machine bi tibb leen suuf si subhanallah ah Cheikh Mouhamed suñu dars bi passé dañ commencé am kuy këlti kërti fii tey ñu ñëwaat waa ji ñëwateeg machine am allahul mustaan gars xanaa du ngeen def ay du ngeen def ay affaire balaa ngeen di ñëw tayib léegi al umum min awarid al mooy ne al umum laa yakunu fi l wujud fi l umum munta nekk fi ajsam boo ne kalima amma هذه الكلمة غني عامة غني الإنسان غني عامة عموم بي ci lafz bi lay nekk mais mu ta nekk fil jism léegi nag fi njumte nekkee fi erreur nekk ci ñenn ñi ci ñoom mooy ñàkk mën a différence def xàjjatle diggante ñaari amin yooyu amin bi nga xam ne lu ñuy wax di ko tudd la wala lu ñuy xalaat la ak amin boo xam ne aminub jëmm la ci biti nga xam ne kenn du ko mën a bokkale ak moroomam foofu mënoo faa jël wujud ñaari mbir yu bokkul nga boole leen jox leen benn wujut benn am mënul nekk ndax ñoom ñaar seenuk am mënul bokk nekk benn foofu la foofu lañ duggee ci ay axta ay erreur yoo xam ne di ko tegale di dem di ko tegale di dem ba mu yóbbu leen ci sore sori yoo xam ne jarul ñu ci taxaw mais li may wax fii mooy buñ ñëwaatee ci wujut daaxili boobu kenn ci ñoom daf ne dafa am aalamul adam boo xam ne fa mbir yi di nekk di xaar seenuk war a dugg si ci aalamul wujut ba seenu dugg si ci aalamul wujud jot yàlla jële leen foofu nga xam ne fa lañ nekkoon nga xam ne ñun ci ñun mooy lu amul mu soog leen dugal ci suñu dund gi nga xam ne mooy ak am mu ne foofu nag fa la xam-xam lépp lu am rek ci li ñuy xam mu ne fa la nekk fa la yàlla xamee mbir yi laata ñuy ñëw kenn ci ñoom nee na moom wali yi la boo xam ne àgg na foo xam ne xam-xamam tamit foofu la koy tibbee mook yàlla ñu bokk fi ñuy jële xam-xam moom soxlaatul sax jële ci yàlla mais mook yàlla ñoo bokkee fi ñuy jële seen xam-xam ndax li tax ndax yàlla subhanahu wa taala bu ne inna zalzalata saati shay'un azim xam nga zalzalatu saa ñëwagul mais yàlla daf ne shay'un azim yàlla ne mbir la moo xam ne mu rëy mu ne bu ko yàlla di tuddee mbir mooy kon fi mu nekk lu am la waaye ma nga ci alamul adam ñëwagul mu ne foofu mu nekk ci alamul adam nag mbiram mu ne moom foofu la koy fekk xam ko laata muy ñëw alors que xamul ne wujud boobu wujud daaxili la suba dinaa la may dërëm ça ne veut pas maa ngi dërëm bi nii lu ma jàpp sama xel la ne suba dinaa liggéey dinaa yëngatu mais nekkul ne dama denc kër ga dërëm lu ma namm la wala may am lenn lu may planifier ci liy ñëw loo xam ne wax naa ko xalaat ko ba mu teg ça ne veut pas loolu fi mu nekk am na déedéet mais lu lu nekk ci biir la loo xamante nit ki da koy xalaat di ko imaginer di ko wax mais nekkul ne lu am ci biti la ñaari wujud yooyu kon bu nit deful différence seen diggante ci lay do góor gi nag dafa jëfandikoo seen istilaax moy istilah bim mu ci ne khurujul mumkinat min al adam ila al wujud fofu amna ben benn bu fa nek boo bu nit ki moytuwul mën na dugg ci njuumte li ñooñu dugg léegi mu daldi jóge fofu daldi wax ne wahidan ba'da wahid ben ginnaw ben muy sen jóge fofu di ñëw mu ne lolu moy al qada mutabiq lolu moy al qadar al qadar jàpp len ci nak sino damay dama bëgg euh wax ne gor gi rahimahullah moy al jurjani dafa def différence diggante al qada ak al qadar bu ngeen ci jàppul su may répété ñaari baat yi dama leen di jaxase mutabiqan lil qada lam motax tax mu ne mutabiqan lil qada parce que dañ ne al qada saabiqun ala al qadar li nga xamante ni mooy qada mooy dogal bi jiitu laata al qadar di ñëw ñaari ñaari dogal la mooy yàlla lim bindoon laata mbindee fii di ñëw bi mu sàkkee mbindee fii la mu bindoon tàmbali di appliqué wu ci ñoom loolu la ñuy tuddee qadar لولن تدي قدر قضاء موجيتو القضاء يكون في الأزل قضاء بي موجيتو يكون في الأزل تي في اللوح المحفوظ جناو بنك بو فكنتني لولو مبندون نينكوي أبليكي موي موي موي دبو اك ليغا خامتاني بي موم موي لي امون لول بوبا ني سوكو سودي ليغي قدر اك نو قدر بي موجيتو لا لا لا ورا وخ قدر بي نو نو دي قضاء موجيتو قضاء موجيتو ba ma boo ma boo ma boo ma sikki sàkkalowee léegi ma jaxase xadaa moo jëkk loolu moom xam naa ko man góor gi laay ragal jaxase waxam mais ci li ma xam moom mooy ne ñiy def tafriq xadaa moo jiitu xadar soog a ñëw mais foofu tamit problème am na fa ndax loolu des naa dëppoo ak texte yi mais dinañ ci ñëw insha allah comme texte bi nekk sama kanam ni texte di xadisu ubadat ibne samit mu daal di wax ne wal qada fi l azal loolu mooy li ma waxoon léegi nii al qada fi l azal mooy ne qada moo nekk ci lu jiitu laata mbindee fi yàlla di leen sàkk والقدر فيما لا يزال موي قدر نك موي سي ليغا خامتاني موي كونتيني سي اموك مينديف ني اموك جام ني من والفرق بين القدر والقضاء هو ان القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعه من مينديف سي نوك ام نيوم نيب سي لوح المحفوظ بلان يالا بند لول نتو دي قضاء جناو لول نك والقدر وجودها متفرقه في الاعيان بعد حصول شرائطها جناو بيبو لي ورا تخ ني ام امي yàlla amal len mu ne loolu la ñuy qadar légui nak amna ño xamni ci borom xam-xam yi dañu def différence digënté qada qadar ma tudd ci ñi gëna jege rek ci ñu mujj ñi ku mëna Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz rahimahullah mom dawul def différence bi mais ku mëna Cheikh Ibn Uthaymin mom dafa daan def différence bi ci ne qada mo jitu qadar mom non la ko daan expliquer mais hadithu Ubadat ibn Samit daf ne inni samitu rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam yaqul inna awala ma xalaqa allahu alqalam fa qaala uktub فقال ما اكتب قال اكتب ما اكتب بتمت امنا نياري نجانجن ما نين دويلو لولو ما اكتب لان لاي بند منك استفهام مرال قال اكتب القدر اكتب القدر لجي فوف قدر بوبو موخنا وخني نكو بند بو فكنتني دانيو وخني القضاء في الازل موي لي يالا نديك بند لا تامو ساك جامني قضاء لنجو تودي حديث بي في قدر لكو تودي موم حديث بقدر لكو تودي ndax bi mu waxee xalima bi na ko bindal mu ne ko lan lay bind daf na ko bindal alqadar muy bindal ndogal mooy li may dogal ci sama jaam ñi lépp bind ko mu bindee ko ci kattanu yàlla ak ci mën-mënu yàlla la ko bindee ma ma kaana wa ma huwa kainun ila al abad li nga xam ne am na ak liy am ba keroog bi su penc léegi foofu benn iskaal moo fa nekk ci xadis bi mi ngi ci sononu tirmidi jaami tirmidi iskaal bi fa nekk mooy bi yàlla bindee bi yàlla sàkkee xalima bi fekk bindagul mbindee fi dogalagul ci ñoom dara naka la koy waxee na ko bindal li am ak liy ami ji loolu booba iskal lay doon problème lay doon iskal bi muy problème bi mi ngi teggee ko ci boo comprendre ne wax ji delluwul ci maakaana ci xalima bi mais mi ngi dellu ci yonent bi alayhi salaam mi doon wax ci yonent bi lay dellu moom bi muy nettali mbir mi day wax maakaana ay maa kaana qablahu huwa alayhi salatu wasalaam mooy moom yonentu bi alayhi salatu li am laata moom muy muy muy toog di ko nettali mooy li mës am ci mbindeef si lépp yàlla da ko waxoon ne ko na ko bind wa maa huwa kaa'in ak liy ñëwi ji mooy ñun ñi suñu ginnaaw pas ci xalima bi kon maa kaana wa maa wa maa wa maa huwa kaa'inun ilal abad day dellu ci yonent bi ci nettali bi mu koy nettali mais delluwul ci xalima bi ndax xalima bi dafa ñëw bind lépp loo xam ne luy am ginnaawam la pas li nga xam ne lu ko jiitu la loolu moo tax ma maa kaana wa maa huwa kaa'inun ci loolu lay dellu fayib léegi waxoon nañ sànq ne alqadar mi ngi dellu ci ndogalu yàlla ci xam-xamu yàlla moo tax alimaamu shafii wax ne naadiruhum bililmi fa in aqarru bihi xusimu wa in jaxaduu bihi wala in jaxaduu kafaru bu waxee bu bu ahlul qadar ñëwee ci yéen di dàggasante ci ndogal na leen delloo ci xam-xamu yàlla buñ ko nangoo saxal ko ngeen yey leen buñ ko weddee génn ci lislaam nekk ay yéefar mooy buñ ne yàlla xamul ndax xam-xamu yàlla bi nga xamante ne dafa matale bi mu wax ne wa anna allaha qad axaata bi kulli cheyin ilma wa kaana allahu bi kulli cheyin alima léegi yàlla subhanahu wa taala xam-xam bi nga xamante ni xam na ko lépp lu am ak lépp mbir ñi ci loolu la qadar di dellu léegi nag mu des ne bu dee dañoo wax ci wàllu qadar ak ci bind bi ko yàlla subhanahu wa taala bind ku mel ne cheikh alimam ibn al qayim rahimahullah dafay wax ci maratibu al kitaaba martaba bu njëkk bi mooy martabatul kitaba fi lawxil mahfuz mooy bind boobu yàlla bind ci lawxul mahfuz mbiru jaam ñi te mu ñëw ci quran ñëw ci sunna ci ne yàlla subhanahu wa taala bind na mbiru jaam ñëpp ndax bi mu waxee ne ma asaba min musibatin fi l wala fi anfusikum lan lay wax daf ne illa fi kitabin min qabli an nabra'aha nabra'aha ji day dellu imma ila nafs aw ila al ard mooy ne dara du leen dal ci musiba boo xam ne dal na ci seeni yaram dal na ci seeni bakkan lu dul ne fekkoon na yàlla bindoon na ko laata muy sàkk suuf si wala laata muy sàkk seen bakkan yi loolu mi ngi ci ab téere boo xam ne ci la ko yàlla bindoon bind boobu mooy bind bi jiitu bi nekk ci lawxul mahfuz beneen bind bi ci des mooy bind bi yàlla di wàcce ci loxo malaaka yi ci bi nga xamante ni moom lay def ci laylatul qadr li tax ñu tuddee ko laylatul qadr mooy al laylatu allati tatanazzalu fiha al aqdar te loolu mooy al aqdarul xawliya moo tax mu tuddee ko al kitabatul xawliya mooy liy jógee ci lawxul mahfud di ñëwaat ci loxo malaaka yi te yàlla subhanahu wa taala doon wax ne fiha yufraqu kullu amrin xakim inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina yufraqu loolu lay teg yufraqu kullu amrin hakim ay amrin mahkum mooy lépp lu yàlla di atte ci jaam ñi ci ay ndogal ci guddi googu la koy tàqale leeral ko jox ko malaaka yi kenn ku nekk la ci jox mu jox la ko beneen kitaaba bi ci des mooy li liy jógewaat ci malaaka yi di wàccaat ci jaam ñi loolu noonu góor gi rahimahullah tuddee ko kitaaba yawmiya mooy bu fekkente ni dañoo ñëw ci jam ñi di wàcce li nga xamante ni mooy ndogal yi mu ne foofu tamit dañuy bindaat moom mu tuddee ko kitaaba yawmiya comme li yàlla wax ne kulla yawmin huwa fi sha'n kulla yawmin huwa fi sha'n est ce que loolu mën nañ ko tuddee kitaaba allahu alam mais beneen kitaaba bi ci toppaat mooy al kitaabatul umuriya mooy nit ku nekk bu nekkee ci biiru ndeyam yàlla bu fa defee ñaata ñaata la waxati woon quatre mois dix jours la waxoon quatre mois dix jours ñaata la cent vingt jours 4 mois 120 jours la 120 jours bu ko fa defee buy dugg ci benen étape bi ci la suñu ci hadith abdullah ibn masud dafa waxoon ne yujmau khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman wala 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh thumma yursalu ilayhi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimat legi bu duggee ci cent vingt jours yooyu ci la yàlla di yebal ci rahim bi malaaka boo xamante ne bi moom mooy ñëw bind mbiru jaam boobu loolu tamit lu ñuy bind la mbind goo xamante ni dafa aju ci mbiru jaam bi moom kase mais bind boobu bokkul la ñaari bind yi ma waxoon mooy bind bi ñuy bind ci lawxul mahfuz ak bind bi ñuy jox malaaka yi ñu wàcce ko boobu c'est général ñëpp la concerné mais bi moom jaam bi moom kase la concerné léegi bu ñu jógee ci euh, maraxilu kitaaba yooyu dañuy dem ci lenn منهج أهل السنة ولا طريقة أهل السنة في القدر موي توسط بني توسط نك تدقنت القدرية الجبرية لين تيوبو موي تفريق بني دف بين المحبة والإرادة موي إرادة بني خمنتني بمعنى المشيئة لجي فوف أهل السنة دانيو دف ديفرانس دقنت نياري مبير يو خمني نيكو جخسي نيب دانيو جمش بنتون دوغل mooy suñu borom subhaanahu wa taala dafay soob dara lu mu lu mu soob ne lii day am loolu dafay am wax na sax wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin yàlla subhaanahu wa taala lépp loo xamante ni soob na ko dafay am kenn mënu ci dara am nag leneen loo xamante ni dañ koy tuddee mbëggeel gu yàlla di bëgg dara te mu bañ koo soob maanaam coobeer coobare yi borom bi bañ cee nekk mais lu yàlla bëgg la bii lañ tuddee iraada kawniya bi ñu koy tuddee iraada sharciya ahlu sunna dañoo def différence seen diggante aljabriya defuñu ko alqadariya defuñu ko ndax ñoom dañ ne machia ak mahabba benn la lu yàlla soob ak lu yàlla bëgg benn la ñii ne lépp lu am yàlla moo ko bëgg yàlla moo ko soob defuñu différence bi loolu indi liñ tuddee aljabr mooy ne jaam bi amatul pexe amatul ndogal ci def dara ndax wa ma tashaa'una illa an yasha allahu rabbul alamin lépp lu am yàlla la soob li muy tekki mooy lépp lu am ci coobare yàlla la dellu ci lu yàlla bëgg lu mu gërëm ak lu mu gërëmul lépp coobareem la jaam bi du def lu dul topp loolu nga xam ne mooy coobare yàlla kon munu ci dara beneen bi ci des mooy ñi nga xamante ni dañu wax ne lépp lu am coobare yàlla la waaye bu fekkente ni jaam bi dafa soob lu safaanoog li yàlla soob li jaam bi soob mooy am moo tax nee nañ kenn mës na toog ci ñëw ci jataayu waasil ibn ata muy xadari yooyu yi nekkoon bas basra ne leen gëléemam dafa réer ibni abdul aziz mi ngi koy nettali alxanafi ci charx taxawiya mu ne mu ne sama gëléem dafa réer ñaanal leen ma mu feeñ ñu daal ne yow yàlla bugguloo woon gëléemam réer gëléemam ñu sàcc ko ñu sàcc ko mu ne ko doy na taxawal ndax damay bañ mu bëgg mu feeñ du feeñ kon taxawal ñaan bi doy na bul ko àggale comme bëggul woon mu réer mu réer mën naa bëgg mu feeñ du feeñ léegi ñoom li leen yóbbu ci wax jooju mooy nga ni yàlla moo sànq nit ba noppi mbugal ko boo yàlla moo bind ci nit ak cànkute li muy tekki mooy moom moo ko sànq moom yàlla ci coobareem ba noppi mbugal ko léegi pour daw loolu ñu ne koon yàlla bindul ci moom li nga xamante ni mooy cànkute gi moom moo ko bëggal boppam yàlla bëggoon na mu jub mom bugul jub limu bugul moy am li yàlla bëgg do am fofu fofu la khutura bi nek kon limi tekki moy mashid mashiatul abd ghalibatun li machiatillah mooy coobarey jaam bi mooy dominer mooy not coobarey yàlla fofu lañ defé njumte lu reey rëy léegi nag li tax ahlus sunna xajale def ne yàlla subhanahu wa taala iradam day nek irada kawniya irada shar'iyya dañuy wax ne loo xamante ni iraada la loolu day delluwaat ci imma an yakuna al amru muraadan li zaatihi aw muraadan li gayrihi mbir boo koy bëgg da nga bëgg ngir njariñ lu ci nekk lum lay amal njariñ moom ci boppam wala njariñ loo xam ne nekkul ci moom mais feneen la nekk mais ci mbir mi ngay jaaree pour am ko c'est indirect kon njariñ li imma mu nekk lu wala mu nekk lu indirect nit ki jël lu di ko naan nekkul ne wexaay bi moo ko intéressé mais li nekk ci ginnaaw wexaay bi mooy li ko lu wex li di jural loolu moo ko intéressé médecin biy dagg tànku ki nga xamante ni dafa am lu ko dal ci tànkam ba tànk bi yàqu dagg tànk bi yàqute la lu mu bëgg la mi ngi koy def mais nekkul daf koy def mu nekk finalité nekkul finalité mais lu muy jëfandikoo la ngir àgg ci leneen njëriñ loo xam ne dagg tànk bi moo ko koy jural est gis nga bu baax mu nekk maslaha rajiha boo xamante ni lii mooy def nii xëy na moom séntu ci njariñ ci jëmm jëf bi mu koy def mais mi ngi koy séntu ci loolu ci lu mu koy yóbbu loolu moo tax ngay gis ne kon suñu borom subhaanahu wa taala sopp bu muy sopp mbir ba noppi du ci forcer ay jaamam wala bëgg bu muy bëgg mbir ba noppi du ci forcer ay jaamam mu bàyyi leen ak li nga xamante ni mooy seen coobare ci bunt boobu dafa am lu ci yàlla subhaanahu wa taala jublu mooy li ñu tuddee al ibtilaa li wax ne alladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum axsanu amala bu fekkonte ni yàlla subhanahu wa taala dafa dogal ci ñun ay mbir yoo xam ne mënuñu ci dara ni mu ko dogalee mooy am ku réer moo la réeral ku jub moo la jubal du sa pexe du sa lenn du sa coobare kon bu boobaa ibtilaa boobu dootul am muy nattu boobu mu wax ne daf ñu koo bëgg a nattu dootul am qul il xaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur loolu yëpp mi ngi koy wax ci wàllu ngëm wàllu topp li nga xamante ni bi moom mooy li yàlla subhanahu wa taala gërëm ndax foofu yàlla subhanahu wa taala daf ñu faa bàyyi ak suñu coobare fi mu ñu bàyyiwul ak suñ coobare mooy ci mbiri àdduna bi ak ni mu tëddee ak ni suñu dund tëddee suñu dee ak li ñu fi war a mën a def ak li ñu fi war a mën a def. ci wàllu ndogal yooyu di jaar ci suñu kaw loolu atte yàlla la yoo xam ne kenn mënu cee soppi dara ci coobareem la dellu mais bu dee nag ci suñu wàllu jëf yi ñuy jëf di suñu jëfi bopp di ko ko jaamoo di ko ci topp loolu ci suñu coobare la ko dellu bu ko neexoon mu forcé ñu ci loolu walaw shaa rabbuka la amana man fi l ardi kulluhum jamian أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صح ولا لا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين kon loolu li muy tekki mooy bu ko sooboon mu def ko mooy ku nekk mu jox la njub waaye moom la soob moom yàlla subhanahu wa taala mu bàyyi leen léegi nag fi problème di nekk iskal di nekk ci waxu mutazila bi mooy li ñuy fekk yàlla di wax ne man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim man yahdillahu fala wala man man man la ko waxati la la fawul muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida bi nekk suratul kahf léegi foofu iskaal bi fay nekk mooy boo nee ku soob yàlla mu jox ko njub ku soob yàlla mu jox ko mu réer wala boog mu xañ ko njub léegi foofu ñoom iskaal bi ñu fay am mooy bu fekkee yàlla mooy jubbanti ku ko soob mooy réeral ku ko soob kon maandute amatul foofu ndax bu ëllëgee dafay fay ki nga xam ne moo juboon ci kaw jub ki mu juboon aljanna kële mu fay ko mbugal te yàlla moom moo jubal kii moom moo sànq kii mës nañ ko laaj kenn yaakaar naa alimaam eh, Ibn Abil Aziz nettali waat na ko ba léegi ku mel ne sax nettali na ko ci ci benn jataay boo xam ni benn borom xam dafa toogoon ñu ko tudd Ibn Asim kenn daal di na ko naka la ko yàlla di xañee njub wala naka la ko yàlla di réeralee ba noppi di ko mbugal ci kaw réeral bi nga ko réeralee bu ëllëgee. ndax yow da ne bu réeree yàlla moo ko réeral bu jubee yàlla moo ko jubal kooku daal di koy tontu ne ko bu dee da nga ne njub muy alhidaaya moo melu yàlla la bu ko ko xañee ci xam ne yelloowu ko kon tooñu ko ndax huda muy hidaaya ijaab la dalal salb la li positif li négatif la lii dafa positif lii dafa négatif ab dalal mooy adamul hidaaya kon yàlla tooñu ko mooy yàlla moom moom njub ku ko yàlla jox mu jub ku ko yàlla joxul mu réer léegi kon ki yàlla tey ci moom euh, njub ndax xam ne deful li tax mu yelloo yàlla jox ko njub kooku yàlla tooñu ko kon moom yorul lu mu moom yàlla ñu nangu ko ci moom ñu bari noonu la yaakaaree wàllu réeral yàlla bu yàlla di réeral jaamam foofu nag bu loolu nag bu leeree ci boppu jaam bi buntu xadar dafay leer ci moom mu xam ne kon ñu bari li ñuy yaakaar ci euh, mbir moomu ne buñ ko waxee daf leen dugal ci xawlul mu'tazila comme ne ibne abdul aziz mi ngi ciy wax ne fa farru min shay fa waqaaw fi ma huwa ashadd minhu mu ne kal mustajiri bi naari min ramba mu ne mutazila yi liñ doon daw ca lañu tàbbi moo ko gën a garaaw fuuf ndax ñoom liñ doon daw mooy naka ngay waxee ne yàlla moom moo réeral kii moo jubal kii ba noppi mbugal kii ñoom loolu ci moo leen ci tàbbal ci maandu teg yàlla lañ bëggoon a dellu ba tax ñu dàq li nga xam ne mooy ndogalam loolu dugal leen ci njumte lu rëy rëy rëy mais boo delluwaatee ci ni ko ahlu sunnati wal jamaa leeralee ci ne yàlla day bëgg dara bëggal jaam ñi ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu jub mooy li mu wax ne wa in tashkuru yardahu lakum wax ne wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda li ibadihi al kufr mooy ne yàlla lim leen bëggal gërëmal leen ko mooy ngeen topp ko gëm ko yàlla bañal na leen mooy li mu wax ne kullu dalika kana sayiatan inda inda allahi wala inda rabbika inda allahi la wax makruha suratul israf inda rabbika kullu dalika kaana sayi'uhu wala kaana sayi'atan ci beneen qiraa bi inda rabbika makruhan mooy yàlla bëggu ko kon ginnaaw bi mu tuddee maasi yi mooy yooyu mu tudd ci ay bàkkaar tàmbalee ko ci bokkaale ba ñëw ci yi mujjee ñëw ci aklu maalul yatiim ak ak euh, ñàkk a respecté naxtas yi ci jëm ci njeexital def ne loolu yëpp yàlla bëggu ko kon li mu tekki mooy yàlla bëggaluñu ko lu yàlla bañ la mais mbañeel googu mu bañ terewul ne bu ko jàmbee def mu soob yàlla maanaam yàlla ci coobareem yàlla dogal ci jaam bi mu def ko mooy yàlla nangul ko def gi mu koy def kon ci ndogalu yàlla la loolu amee ndax kenn mënta def lu génn ndogalu yàlla yàlla bàyyi na jaam bi mu def ko doonte yàlla gërëmu ko li tax ndax yàlla dafa bëgg a bàyyi jaam bi ak coobareem moom ci loolu bugg koo forcer comme yàlla buggut a forcer jaam bi coobareem la ko bëgg a bàyyil bu jaam bi tànnale boppam kéefér yàlla gërëmul kéefér gi ci moom naam waaye dina ko autoriser mu def ko ndax bu dul loolu kon suñu indi bi ñu fi indi pour nattuñu dootul amati sens ndax bu ñu ñëwoon ñu ñëpp mu forcé ñu ci lenn rek lu baax ñu koy def mënuñu koo bañ def kon bu boobaa bu waxee ni daf ñuy éprouver di ñu nattu ci kan ci ñun mooy baax ak kan ci ñun mooy ñàkk a baax li mu waxoon ne li man shaa minkum an yataqaddama aw yataaxar kon boobaa loolu dootul amati loolu kon moom moo tax kon ibtilaa boobu muy nattu boo ñu yàlla bëgg a nattu loolu moo tax yàlla bàyyi ñoo coobare yi ba bu ëllëgee mu mën ñoo fay selon kenn ku nek sa mérite selon kenn ku nekk sa mérite mais ci li nga xam ne nag amul rapport ak loolu muy amul rapport ak nattu googu muy jongante boobu ñuy jongante nga xam ne ci wàllu doxuk jamono ji la ak nekkuk jamono ji loolu moom ci loxoom la ko teg ci ay ndogalam rek la koy def loolu lañ tuddee al iradatul kawniya mooy li jëm ci wàllu kawnu muy ci wàllu dund gi ak li ci jëm léegi nag bu ñu defee différence diggante ñaar yooyu boobaa kon qadar dafay leer suñu bopp moo tax kon bu bi bi ay nit ñëwee ne ya rasulullah ana amalu li shay'in qad furiga minhu am lima nastaqbil ñenn ci saxaaba yi dañ ñëwoon ci yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko ndax dañuy def loo xamante ni yàlla pare na ci noppi na ci bind nañ ko ba pare yàlla xam na ko ñu bind ko ba pare wala ndax loo xamante ni lu bees la amil amri unuf al amru unuf mooy dara newu fi loo xamante ni lu ñu bindal la wala lu ñu yàlla xamal la kon sa suba sa nangam la lépp yàlla xamu yaag yàlla ci yam yàlla ne bal yonente bi alayhi sallam ne leen bal lima qad furiga minhu li ngeen di jëf yàlla pare na ci mooy li mu waxoon ne jaffal qalamu bima huwa kain waxoon abdullah ibn abbas tamit ne ko rufiat al aqlam wa jaffati suxuf mooy ne yàlla bind na lépp bañ teggi xalima ya ba lem fañ ko doon bindee doo su ci yokk de su ci wàññi bu waxee nag ne yamxu llahu ma yashaau wa yuthbit wala wa yuthabbitu wa indahu ummul kitab loolu tekkiwul ne ca ummul kitab dañ fay dindi di fa yokkaat kenn du fa dindi di fa yokkaat waaye li ñuy dindi di fa yokkaat mooy li nekk ci loxo malaaka yi te lol nek ci loxo malaaka yi ñu sey dënd di ci yok mi ngi delu ci lawhul mahfuz motax mu ne wa indahu umul kitab kon yamhu allah ma yasha wa yuthbit fi ma fi aydi al almalaika wa indahu umul kitab umul kitab moy asdar masdar ak aslu al mahwu wa al ziyada fi ma fi lawh al fi ma fi aydi al almalaika li nek ci loxo malaaka yi yàlla lu ko ci sop ci li nga xamanteni bindal nako jambi ci li malaaka bi yor yorogum bok limu yorogum yàlla mën na toog du ma wax sax baatu toog yàlla mën na ko soog ndax baat yooyu ñu dañ koy jëfandikoo nii waaye bu dee ci yàlla la léeg-léeg pour tegginu ci ni ñuy waxee ci mbiru yàlla yàlla mën na ko soog mu dem ba jamono laata loolu di wàcc ci nit ki yàlla di ko dogal ci moom yàlla subhanahu wa taala soppi loolu def fa leneen kon yamxu ma yacha wa yuthbit wa indahu umul kitab cosaan bi foofu la kon bu yonente bi alayhi salaam waxee ne jaffa qalamu bi ma huwa kain ak rufiat al aqlam wa jaffati suxuf dàqoon teewul ak aaya boobu loolu moom mooy li nekk ci ci ci ci ca lawxul mahfuuz loolu moom amul lu cay soppeeku mais li nekk ci loxo malaaka yi am na loo xamante daf ciy soppeeku li moom mooy dëgg-dëgg ndogal ci ci suñu mbir ñun li aju suñu mbir ci loo xamante ne yàlla xamal nañu ko yàlla bind na ko ginnaaw bi yàlla subhana taala wàcce ko ci ñun ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy dund mu nekk loo xam ne lu yàlla teg suñu kaw la mënta soppeeku mënta changer sax wala la xadis bo mujjee jàng ban xadis la waaw boobu laa doon jàng léegi biñ ko laajee na ko mu ne leen bal li ma qad minhu ñu ne ko fa fiimal amal bu fekkente ni loo xam ne pare nañ ci bind nañ ko ba pare kon lan moo taxati ñuy jëf mu ne leen i'malu fa kullun muyassarun li ma lahu jëf leen kenn ku ne yàlla dina ko yombalal li tax mu sàkk ko li ma lahu li tax mu sàkk ko loolu noonu dafa am tuuti explication ndax li ma xuliqa lahu dameer ji ci kan lay ci kan lay dellu ndax lima ma xalaqa allahu lahu huwa wala lima wala lima ma xalaqahu huwa allahu lahu min ajlihi ñaar yëpp mën na nekk mooy li li ko yàlla bindal dina ko ko yombalal li ko yàlla bindal ci destin om ci liy ñëw yàlla dina ko ko yombalal wala moom li tax yàlla bind ko moom yàlla dina ko ko yombalal moom li tax moom yàlla bind ko yàlla dina ko ko yombalal mooy kenn ku ne am na lu tax yàlla bind la mooy li mu waxoon ci hadith ibni masud ci arbau kalimat yooyu بوك لا لي بن افقيون ام سعيد بنن بي ديس موي ايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا اما حديث بوشي نيو بو خامني كومن الامام ابن القيم كين سي اي مواقف دا فاي واخني دو نيكول ني تفسير ايه بي موكو تاخا جوك نده لي تخ موي ايه بي داي واخ سي شهاده بي يالا داف سي دومو ادمي ني سيده نانغو غي نانغول يالا اك روبو بيام loolu beneen mbir la mais dafa am beneen xadis boo xam ni yonent bi alayhi salatu wasallam te keroog maa ngi gis kenn di ci jaxas njaxas gu jégg dayoo ci ñuy jéem a yàq lislaam ndax dafa wax ne yonent bi alayhi salatu wasallam yonent bi alayhi sallam dafa ne suñu borom subhanahu wa taala dafa dóor diggu ndiggu aadama ginnaaw bi mu ko sàkkee mu génne li nga xamante ni bi ñooy ay sëtam ñu ñul kukk mel ne ay melentaan ay sànqalañ yàlla subhanahu wa taala daal di séparé ñi nga xamanteni bi ñom ñoo jëm aljanna ak ñi nga xamanteni ñom ñoo jëm safara ci yenn ci ay riwayat sax daf ne adam akhrij ba'sa nar daf ko ne gennel ci say set ñi nga xamne ñoo jëm safara muné ko ñan ñoo jëm safara muné ko min kulli alfin min kulli alfin waaxid laa yanju minhu illa waaxid mooy ci ci ci junni bu nekk kenn rek moo ciy rëcc loolu tamit am nañu ko iskaaloon ci yonente bi alayhi salatu wasalam naka la ñuy waxee ne ci ñi yàlla bind ci doomu aadama yi junni bu nekk kenn moo ci rëcc bu fekkee proportionnellement da nga xool pourcentage yu ñiy war a texe ak ñi dul texee di ndax da ngay wax ne ñiy texee di ñoo ëpp junni yoon ñi dul texee di kon li yàlla di mbugal ci jaam ni moo ëpp wala ndax am na beneen sew-sew bu nekk ci ginnaaw sew-sew bi nekk ci ginnaaw mooy ya juuja wa ma juuj moom la ko yonente bi alayhi salaam tekkee mu nekk tekki bu explication bu sew bu jéggi dayoo mooy bariwaayu yajuuj ak majuuj par rapport ak ñun du dara yajuuj ak majuuj dañuy romb fu fu fu dégg nekk fu kii nekk dex nekk dex wala wala wala wala wala wala géej ñu fa rombee ñi mujj ci ñoom buñ ñëwee dañ naan fii ndox musu fee am ndox musu fee am la ñuy wax ndox musu fee am waxuma ñoom ñu dem keneen ñëw de ñoom seen bopp ñoom ñi njëkk romb bu ñu rombee ba naan ko ba caxat caxatee ko ba dem ñi mujjee ñëw ci ñoom bu ñu agsee dañ naan fii ndox mu su fee am noonu lañ mel moo tax bu ñu demee ba suñu borom war leen fee jëlee ay picc lay yebal ci asamaan ñu ñëw ñoo leen di sànni ay xeer rey leen ñu nekk ñu dee ci kaw suuf nëpp ci kaw suuf ba suuf si yépp nekk euh, lu pollué yàqu complètement ba waa kaw suuf commencé di feebar ci la ñuy ñaanee yàlla si jamono yonente yàlla Isa yàlla yebal benn taw ci asamaan moom mooy ñëw tonni leen jële leen fi bis boobu yow mu tahaara lañ koy tuddee ci kaw suuf yàlla nañu yàlla musal ci ñoom kon ñooñu seen bariwaay boo ko nattee par rapport ak doomu aadama yi nga xam ne mooy ñun ñi am jëmm yii nii da ngay gis ne kon lu lu lu ñu mën a comprendre la mu des nag ndax ñoom dañu leen di conse considéré ci banu aadam wala ndax ay yeneen mbindeef lañu am déet loolu tamit beneen sew sew la boo xam du ma ci duggaat ndax borom xam-xam yi moom masala boo yëkkati rek li waa ji wax naan toogal sama place ku ñëw laaj la question ko fii xawlaani cheikh bu war a xol benn taalibeem ne ko léegi danga may remplacer mu ne man munuma expliquer masala yi mu ne ko lu ñu la laaj rek neen fil masalati qawlan benn waaye ñëw ne ko afillahi shakkun mu ne fil masalati qawlan ci xadisu ahlil yaman daf ne kaana kaana allah walam yakun shay'un gayruhu comme ni ma ko waxee wala walam yakun shay'un qablahu وكان عرشه على الماء لولو ماي لين دون وخ وجود العرش اك وجود القلم ايهما اسبق موي خليمه بوبو يالا ساكون تي مو بيند لا نيك تي روح المحفوظ بيند ليپ لوي ام تي ميرو جامي اك عرش بيغا خاني مو تيم ادنا بي دا خامتاني نين ادنا بي ني نيك دا فا نيك تي رون عرش وخوما سخ رون عرش مي تي رون كرسي توتي فا لول لول لول لول كرسي تيميت نيوات نيك تي سوف عرش توتي فا توتي لول تي كانامم tuutiwaay yooyu noonu ñu tuutante loolu duma ci dugg trop mais ñenn ñi wax ci wàllu ay physique ak yu ci jëm ci physique physiciens yi dañuy wax ci planètes yi di wax suñu suñu planète bi nu mu tuutee ci univers bi par rapport ak univers bi dafa mel ne benn tomb bu ñuul boo xoolee tuutiwaayam pourtant ñun ñu si ne gis nga ni mu rëyee ci ñun xoola bi yonent bi alayhi salaam di wax ne boo comparé course yi ak suñu planète bi ñu nekk dafay mel ne nga jël benn jaaro sànni ko ci désert bi nee na noonu la ci mel kon ñun la rëy ci ñun mais la ci yàlla subhanahu wa taala mu daal di wax ne wa kataba fi zikri kulla shay wa kataba fi zikr al zikr mooy alkitab al zikr alkitab wa laqad katabna fi zikri wa laqad katabna fi zabur min ba'di zikri anna al ardha yarithuha yarithuha ibadi as salihun wa laqad katabna fi zabur min ba'di zikr al zikr nee nañu allawxul mahfuz kom nim ko waxe ci aya bobu non mom timit fitmi tamit al zikr mooy allawxul mahfuz wa khalaqa as-samawati wal ardh ginaaw lolu yàlla daal di sàkk asamaan yi ak suuf xadis ba mu al-bukhari نيرينو نيرينو الايمان بالقدر غورغي رحمه الله في مولال دي تكني حلوه ومره موي لي دالو سي جامبي شره وخيره موي لي دالو بالي سي جامبي دالو ول سي يالا سبحانه وتعالى نده داني واخني كوم لي يونتبي عليه الصلاه والسلام والشر ليس اليك الله لا ينسب اليه الشر يالا كين دو دلو سي موم بونته ليپ لو مو ديف لو باخ لا نده خلق الله اك مخلوق الله فعل الله اك مفعول الله مفعول الله يكون شرا وفعل الله لا يكون شرا موتاخ من شر ما خلق موي ليس آه، ني يالا موم مو ديف لو خامتاني لو بون لا مي من شر المخلوق من شر المخلوق المخلوق له شر مو يالا داي ساك مير مير مومو ام بونت بونت بوبو موم غاي مسلو مي نيكول ني يالا سي بوبام جيفام موم غاي مسلو ندخ جيفو يالا ليب ليب لو يالا جيف رك لو باخ لا لغي مونته بي نيك سي مندهفو يالا تيميت dañuy wax ne lay laa yakunu charran mutlaqan nis bi nisbiyan lépp lu yàlla sàkk mu am mbonte bu ca nekk mbonte bi day nekk par rapport ak yow wala par rapport ak keneen mais moom ci boppam amam moo gën ñàkk amam def bi ko yàlla def moo gën ñàkkoon koo def ci loolu la waxee ba wax ci iblis sàkk gi ko yàlla sàkk bàyyi ko fi moo gënoon mu jëlee ko fi te pourtant nit ñi ñi ngi loru ci moom diine yi ñi ngi yàqoo ci moom waaye ànd ak loolu nekkam fi moo gënoon ñàkkam fay nekk ndax yàlla xakim la lépp lu mu def rek noonu la mooy xakim boo xamante ni lépp lu mu def noonu la jëfam moom yàlla du nekk lu bon mukk mais li mu def mbindeef lay doon mbindeef moomu am na lu bon lu ca nekk mooy lu bon lay doon ci yow wala mu nekk bon ci kële kooku loolu nag nit ki mën na koo jàppee lu moo taxoon bi waxee ne min charrihi wala charrihi wa xayrihi bu boobaa charrul qadar mooy charrul maqdur mooy yàlla li mu dogal jëmmi jëf ci ci boppam loola noona mën na am lu bon lu ca nekk loo xamante ni lu bon la ci yow waaye da koy gëm ndax yàlla subhanahu wa taala moom moo ko amal nit ki faatu yàlla moo ko faat nit ki feebar yàlla moom moo ko feebarloo nit ki ñàkk yàlla moo ko xañ jëmmi def bi ko yàlla def en tant que def ko moom yàlla miy borom di ko def lu baax la waaye nag jaam bi mu dal ci kawam moom ndogal li ndogal loolu mën na nekk lu bon ci moom mais yàlla moom def bi mu ko def lu baax rek la léegi na kon boobaa jaam bi daf koy gëm moo tax mu ne xayrihi wa sharrihi xulwihi wa murrihi ba ca neex ak ba ca naqari ndax léeg-léeg mbir mën na nekk lu baax ba noppi nekk naqari صح ولا لا وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم مير من نكو بوك مو نيك لو بون سي يو فين كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مير من نكو بان تيميت يالا ديف سي يو لول ييب لو مانا نيك لا موتاخ كون بو واخي ني حلوه ومره امنا فرق بو ام ديغنت شره وخيره وشره اخلوه ومره الحلاوه والمراره داي ديلو رك تي مير مي نيك سي يو ولا مو نقاري سي يو كانتا نك الشر والخير لول موم لو باخ لا ولا لو بون ñom ñaar bokku ñu kon tafsil motax mu jëfandikoo ko te amna na tamit yenn ahadis yu ñëw kalima bi ñëw na ci yenn ahadis ci hadith abdullah ibn umar yaakaar na fi al qadar mune wa an yaalama anna ma asabahu lam yakun li yuxti'ahu mune bokku da na tamit ci gëm ndogal moy mu xam wa an yaalama mu xam xam go xamanteni xamu xol la xam-xam bu leer nañ anna ma asabahu ne lo xamne dal nako lam yakun li yuxti'ahu munu ko woon moy lu dal munu ko woon moy mooy lépp loo xamante ni musiba ndax musiba moom buñ koy wax fi fil aslu lépp lu dal nit ci lu neex wala lu naqari musiba lañ koy tuddee waaye dafa dem ba musiba ñu koy jëfandikoo ci lu metti wa in tusibuhum sayiatun yaqulu hadihi min min indi wa in tusibuhum xasanatun yaqulu hadihi min indillah wa in tusibuhum sayiatun yaqulu hadihi min indik ñaar yëpp tusibuhum la jëfandikoo muy ñaar yëpp musiba la sax wala la mais pourtant fa defe ne fa asabatkum musibatu al mawt fa asaabatkum musibatul mawt mooy ne musiba baatu musiba bi ci boppam pas fi'l bi mais ismu bi dafa dem ba ci lu naqari lañ koy jëfandikoo léegi mu daal di wax fii ne wa anna ma asaabahu fi lxaqiqa liñ ciy dégg li ci ëpp mooy loo xamante ne lu naqari la loo xamante ne lu metti la munu ko woon a moy wa anna ma axtaahu loo xamante ni lu ko moy la lam yakun li yusibahu munu ko woon a dal léegi nag mu des bu fekkee fi jëfandikoowul baat bi mais fi'l bi la jëfandikoo ndax lu baax ak lu naq lu baax ak lu lu bon yépp da ciy dugg wala ndax lu naqari rek ak lu bon rek lañ ci namm ci annama asabahu comme fi fi'l bi la jëfandikoo da waxoon nañ fi wa in tusibuhum xasanatun yaqulu hadhihi min indi indi indillah wa in tusibuhum sayiatun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indi indillah fama li haulai alqawmi la yakaduna yafqahuna xaditha legi fi bu jëfandikoo fi'l bi ndax fi'l bi lim ci namm moy ma yakunu shamilan lil khair wa shar wala yakunu huna khassan bil shar dun al khair loolu mahall baxsa la sax wala la li tax moy hadith abdullah ibn abbas motax hadith abdullah ibn abbas motax moy hadith ya ghulam uallimuka kalimat moy fofu amna ci riwaya bi waxne wa anna ma asaabaka lam yakun li yakhta'aka wa ma wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak xawma ci abdullah ibn abbas wala hadith bokk bokk la xadis boobu mooy bi wa anna al yusra maa al usr xadisu kan la ibnu abbas la naam wa anna ma axtaahu lam yakun li yusibahu loo xam ne mooy na ko nekkul woon lu koy dal nekkul woon lu koy dal léegi kon loolu boobaa kon nit ki day daal di gëm ndogal gëm ne lu ko dal da koo warutoon dal lu ko dal da ko waroon a dal ko dalul da ko warutoon a dal loolu moom la yonente bi alayhi salaam jàngoon Abdullah ibn Abbas loolu ci ndogalu yàlla yi lay dellu nit ki nag day sabablu ndax gëm ndogal ak sabablu dàqontewul gëm ndogal ak sabablu dàqontewul ki ki la gën a gëm ndogal moo la war a gën a gëm sabab léegi mu des nag sabab dafay dugg ci ndogal moo tax bu ñuy wax ne amul lenn luy delloo ndogal lu dul ñaan ñaan ci boppam ndogal la ñaan ci boppam ndogal la laa yaruddul qadar illa du'a ñaan ci boppam ndogal la law say shay'un saabaqa al qadar la sabaqathu al ayn amoon luy luy jiitu ndogal kon bët dina ko jiitu waaye bët ci boppam ci ndogal lay dellu ndax même bët bu dalee nit lu yàlla dogal la ci moom nit tamit bu ñaanee ñaan ba am lu mu ko fànqal lu yàlla dogal la ci moom mooy lu yàlla bindoon xamoon ci moom ne dina dogal dina ko dina ñaan dina ñaan ba wa anna dhalika kulluhu fadlun min allahi azza wa jal muné wa anna dhalika mu gëm ne loolu yëpp fadlun nganeel la min allahi azza wa jal fadl la wax wala lan la wax yéen ci yéen قضاء من الله عز وجل قضاء من الله عز وجل من سما سما في sama kii فضل mais qadaa la mu ne loolu yëpp mu gëm ne ndogal la loo xam ne lu jóge ci yàlla léegi góor gi rahimahullah est ce que def na différence diggante qadar ak qada ci waxam deful différence diggante qada ak qadar léegi bu dee ci quran bu ñëwee ci baat kalimatu qadar dañ koy fekk ci ñaari istimaal ci quran benn istimaal bi mooy qadar bi nga xamante ne bi moom mooy biñ doon wax léegi inna anzalnahu fi laylatil qadar mooy qadar bi nga xamante ni ci wàllu bind bi yàlla bind mbiri jaam ñi la subhaanahu wa taala da yàlla ci boppam moo ko tuddee qadar mais am na beneen qadar boo xam ne dafay delluwaat ci yemale gi yàlla yemale li nga xamante ni mooy suñu bind wa xalaqa kulla cheyin fa qaddarahu taqdira inna kulla cheyin xalaqnaahu bi qadar dafa am qadar bu yàlla tudd boo xam ne tekkiwul qadaru bind bi mu bind ca lawxul mahfuz mais yemale gim yemale suñu mbind gim ñu bind ci ni mu ko bindee ba lenn lu nekk mu yemale ko taqdir lañ koy tuddee tamit loolu moo tax mu ne fa qaddarahu taqdiran taqdir boobu tekkiwul taqdiru ndogal bi nga xam ne mooy bi jiitu bi mu bindoon mais taqdir bi mooy yemale gi mu yemale sa bind léeg nag ñenn ñi bu ñuy istidlaal di sukkandiku ci nusuusul qadar dañuy jëfandikoo qadar boobu di ko dugal ci qadar bële alors ko ñaari qadar yu bokkul la taqdir bi nga xam ne mooy li yàlla dogal ci ñun bind ko ci lawxul mahfuz mu jiitu di wàcc suñ ci ñun ak taqdir bi nga xamne parce que baatu taqdir loolu lay tekki taqdir bi nga xamne limi tekki moy yàlla subhanahu wa taala ni mu moñé suñu jëm yi organiser ko aduna bi yamale len lu nekk ci place am loolu benen taqdir la bo xamanteni bokul ñom ñaar hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain am na ay mbir yu ma bindoon ci njariñ yi nekk ci gëm ndogal ci xam gi nit ki di xam yàlla ak xam xam-xamam bi nga xamante ne bi moom moo moom moo moom moo ëmb jaam ñëpp nga xam ne dara génnul xam-xamu yàlla allahu alladi xalaqa sabaa samawatin wa min al ardi mislahunna yatanazalu al amru baynahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وإذ قلنا لك إن الله أحاط بن بالناس في سورة الإسراء mu daal di waxaat fii ne afiqatu billahi wa tawakkul alayhi mooy wóolu yàlla ak lu ci moom mooy li ma waxoon fii léegi ne gëm ndogal li muy gën a sax jur ci jaam bi mooy gën a wóolu yàlla mooy li mu waxoon ibne abbas ndax boo xamee ne yàlla bind na ndogal yi ba pare ek lépp lu la dal mënuloon a ñàkk dal bu ñëpp bëggoon ci yow lu safaanoo te yàlla dogaloo ko ci yow du la dal loolu day tax nga gën a wóolu yàlla kon gëm ndogal loolu lay jur gëm dogal tamit day tax nit ki gën a góorgóorlu gën a sabablu ndax lim mu waxoon ne i'malu fa kullun muyassarun lima ma xuliqa lahu mooy aljahlu bil aqiba mooy ñàkk xam sa mujj ëllëg xamoo lu yàlla bind ci yow ne fa ngay mujj day tax nga ragal foo toll di moytandiku wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna xatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab wala fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar nasalullah salaamata wal aafiya loolu xadis boobu moo tere woon a nelaw as salaf mooy lu ñu tuddee alxaatima mooy sag mujj fan ngay mujjee léegi bu fekkee nag xam nga ndogal yi xam na yàlla xam na lépp ba noppi na ci li ngay def mooy góorgóorlu foo toll ci lu baax bañ am benn moment da càggante boo xam ne ci la la dee di fekk di berte loolu moo tiitaloon as salaf moo tax ñu daan góor góorgóorlu fu ñu toll da nga naan gis kenn ci ñoom kuy góorgóorlu bañ ne diw day buñ ne ko woon suba ngay dee ay jëfam du ci mën a dolli dara allahu akbar ak euh, yeneen yi ci des ñàkk ñàkk naw sa bopp ñàkk yéemu ci li ngay def ndax nit ki bu xamee ni li yàlla dogal ci moom moom ab jaam bu yàlla di dogal moom bu yàlla defee ci moom ay ngëneel da koy delloo ci yàlla mais du ci yem boppam wala mu ciy gis boppam loolu tamit day delluwaat ci ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير دفتتكني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لجي آه، بنان بتميت موي لب يالا دفل نت تي يالا دوغل تي موم اي نغنيل سخول تالي تي موي لي لاي دينديل فيبر خول ييغا خاني موي لو ملني ولا سخور تي نانغو غي نانغو ندوغلو يالا تي لي يالا دي دوغالال تي اي جامم تي اي خيوال اك تي جيم te loolu nekk ay feebaru bakkan yoo xam ne tey ñu bari ci nit ñi loolu moo leen sonal nasalullah salaamata al afiya doylu ak gërëm li nga xam ne moom la la yàlla jagleel moom la la yàlla wërsëgal mooy li yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon ne warda bima qasama allahu lak takun aghna annas doy lool gërëmal li la yàlla cërale yaay nekk ki gën a woomal ci nit ñi ndax a rida rida nafs wala al ghina xina nafs woomal mooy woomalu bakkan mooy woomalu xol nit ki lu mu mën am ci aduna te xolam doylu wul mi ngi melni amul dara lol tamit moy lañuy dund suñu jamono ji nasalullah salaamata wa aafiya hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain جرول دبرانش دام طيب طيب إذا كان فيه المشا ولا مشايخ ما عندهم أسئلة نون يا من يكشون يا مشايخ لن علماء كيف هو جهون تيري بمشارح هو قدم فاي كيب إيه؟ أه؟ واو من أنك فاي لنك فاي دبرانش خيرا تفضل حياكم الله جاكم ميكرو mooy micro bi soo leen koy tàq day wax ci mu jege mu jege gémmiñ sinon bu jegee gémmiñ bi day def bruit yaa incha allah naam rahimahullah naam naam naam naam naam mën na dellu ci loolu wallahu alam daa mel dégguñu woon li ngay wax de xaw ma micro bi moo tàkkul xaw ma mooy li mu wax ne li limaam Abu Bakrin al Xumaydi li mu njëkk a tàmbalee téeram bi masalatul qadar muy li aju ci ndogal ndax sabab bi mooy la fekk mu nekk ne dafa bokk ci masail yi nit ñi njëkk a wuute daal di ci wàcc yoon wi nga xam ne mooy yoonu sunna mën na nekk loolu ndax masalatul qadar bi muy feeñ ci Basra fekk na saxaaba yi ñenn su ñoom ñi ngi dund ci alqarnul awal ba ñenn si ñoom ñëwoon ko di ko kalaame Abdullah ibn ci ne am na ñoo xamante dañoo feeñ ca ñun fële ca Irak dañuy dàq ndogal di wax ne yàlla dogalul dara ba mu ba mu ba ci xadis boobu mu déggoon ci baayam Omar ibn al-Khattab di xadisu Jibril naka noonu tamit Abdullah ibn Abbas mës nañ ko koo kalaame fekk jamono jooju magal na ba gisatul sax dafa silmaxa woon bam ne ki koy doon kiy wax loolu indil leen ma ko fii ma jëfalante ko ak moom al imaamul ajurri mi ngi koy soloo ci ash-sharia kii boobu asar boobu noonu kon li muy tekki mooy masala la boo xam ne fi alan wax tel na cee feeñ ci jamono yoo xam ne yu tel la waaye tamit masalatu al al asma wal ahkam tamit ba léegi lu teel a feeñ la te te yaakaaruma ni góor gi wax na ci sax wala mu teel cee wax mooy ci al xawaarij seen wax jiñ daan wax li ci ajoog yi ci jëm loolu tamit lu teel a feeñ la cheikh l'islam sax nee na mooy masala bi njëkk a ute ci l'islam lim ci namm mooy bi njëkk a jur xàjjalikoo ci l'islam mooy masalatu al asma al asma wal ahkam mooy takfiru murtakibil kabira ak li ci jëm ak yu demee noonu allahu alam léeg-léeg xam tansiq bi alim bi di tansiq téeréem ci tadaruj bi muy tadaruj ci masail yi lu am solo la mais léeg-léeg daanaka da ngay làmbatu rek pour ne xëy na li moo tax mu defee ko nii mais dina jafe nga dogu ci mais masala la boo xam ne masala bu sensible la masala bu màgg la tamit ci usuli ahli sunna la bokk ndax bu dee ci usulu sunna lay wax bi asla la min usuli ahli sunna al iman bil qadar asl la min usuli ahli sunna te tamit da ngay gis différence bi ci nekk seen diggante ak aljabariya jabariya yi ñu doon wax sànq ñi ciy tudd ñoo xam ne ñi ngi tund ak ñenn ci ñoom suñ dëkk bi mais xam nga Sénégal tasawuf bi ci am ñi ci bëri jëfewuñu ko daanaka dëgg dëgg dëgg ndax mutasawifa yi nga xam ne laaloon nañ ci jabariya dañ ko daan delloo ci ne lépp yàlla moo ko sàkk lépp yàlla moom la soob lu am rek yàlla la ñenn ñi si ñoom ko doon def mu nekk shay am ñenn ñi si ñoom ko doon def mu nekk xaas bil aarif nee na al aarif mooy koo xamante ni bi laa yufarriqu bayna al machiatayni machia ci loo xamante ni bi lu baax la ak lu bon la ñaar yëpp machia la mu yutiuhu fi achar wa fi l ndax ñaar yëpp taaxa la ndax bu dee yàlla mooy dogal lu baax dogal lu bon boo ko toppee ci lu baax dogal topp nga ko boo ko toppee ci lu bon topp nga ko mooy bu dogalee ci yow lu baax nga topp ko dogal topp nga yàlla bu dogalee ci yow bon nga topp ko topp nga yàlla kon ki yàlla dogal ci moom julli mu julli topp na yàlla yàlla dogal ci moom naan sàngara mu naan sàngara topp na yàlla léegi ñoom ñu daal di jël taa bi lëkkale ko ak machia fàtte mahabba bi ak tafriq biñ ci war a def muy wan ne aslu dalal ci masala boobu mooy adamu tafriqi bayna al iradati al kawniya wal iradati al sharriya mooy al machia wal mahabba ñàkk a def différence seen diggante allahu almustaan moo tax ñoom ñuy wax ne aarif koo xam ne aarif billaa la du du du du ŋàññi kenn ci lu mu def lu nit def rek yàlla la ciy gis ne yàlla yàlla ci yàlla la ko defee day jàpp ne kii naan sàngara yàlla dogal ci moom naan sàngara mu koy naan kon moom kuy topp yàlla la comme kii julli ni muy toppee yàlla kooku mooy aarif billah moo tax dañuy wax ne man arafa asqata al malaama man arafa asqata al malaama ku xam rek dootul law mu kenn dootul dootul ŋàññi kenn nasalullah salaamata al afiya حياكم الله وبارك الله فيكم يا مشايخ اما يتانغو ينك فلا دي سيسي سيسي بي نالين فلا افير يتانغ دي خو منك بخل فضل يا شيخ محمد فضل يا شيخ

ak am confrontation ak lii ñu la jàmm léegi nag loolu loo ci ñaax terminalité bi nga xam ne programme boobu ñu si kanam beneen laaj bi mooy li may ñëw maa ngi jégalu ci yàlla ñëw bi mais maa ngi doon suivi tuuti ndax loolu ñu chef bi doon juñ ndax ñun dañuy dem waxtaan ak ñoom ba loolu dañ di ci gàlloon ko ci njàng mi bu cooloon di am waaye doon ci liggéey salaamaaleykum wa rahmatullah xayakallah Cheikh Mouhamed allah yaxeyik ala kulli xaal bu dee loolu moo xam naa dina jafe dem di wax ak ñenn ñi parce que lu ñu xaw a sori la dama doon tashwish rek di li suñu benn cheikh daan ñu wax naan laa tushawish wa illaa ushawish maakum eh, suñ benn góor goo xamante ni gu doyoon waar daa daan jàngale tafsir yàlla mayoon ko ci lool bu tullaa bi di xaw a nekk di coow ko wax daf naa leen laa tushawish wa illaa ushawish maakum bu ngeen di nekk fii di perturber damay perturber ànd ak yéen léeg-léeg ñii di perturber de loin day jafe pour ngay dem di wax ak ñoom mais loolu leg leg tooñ nga ci jublu moo taxoon ma koy wax bu dee nag wàllu comme li ngay wax noonu moom bu dee xadar moom li gën sax mooy bañ ci xawdu torop ndax lenn ci astalaf salaf daawuñ ci ku mel ne Ali ibn Abi Talib dafa ne dafa doon ne alqadar huwa sirrullahi fi xalqihi loolu la doon wax sirrullahi fi xalqihi ni seen wax daawul bëree torop ci al asma wa sifat noonu lañ daawul bëree tamit wax ju bëri ci alqadar ndax bu ci wax bëree rek faqastalu mën na cee am saxaaba yi musañ cee toog di ci werante hada yanziu aaya wa hada yanziu aaya ñuy ku ne di istidlaal jël benn aaya di ci istidlaal bi yonente bi alayhi salatu wasalam dafa mer bi mu génnee dafa mer xatta ka annama xufiya fi wajhi xabbu rummaan dafa mer ba mel ne benn doomu grenade lañ jël toj ko ci kanam gi kanam gi xonq coy mu ne leen abi hada umirtum am bi hada buistum tadribuna kitaab allahi baadahu bi baad ndax lii lañ leen sant ndax lii la ñuy xaar ci yéen mooy ngeen jël téere yàlla bi di ko fenqalante di ko dóorante xool leen ci téere yàlla bi li ngeen ci xam ngeen jëfe ko li ngeen ci xamul ngeen delloo ko ca ka ko xam mu wax leen ko loolu la leen digaloon saxaaba yi ci lañ ca pare mbiru ndogal moom léeg lekk dafa am benn jiha boo xam ne jihatu istislaam ak taslim ci lay dellu taslim muy ak taslimu lillah parce que ibnul qayim day wax benn wax bu am solo ci ñuy comme ñu mel ne ñi ngay wax di wax ay philosophe ak ñenn ñi ci yenn domaines yi nga xam ni yeneen dimension la yu dépassé dimension wu doomu aadama ak xelam mooy ne ku nekk xam na ni doomu aadama ni ko yàlla bindee dafa limité wu ci ay faculté am faculté yu ko yàlla jox yëpp ni jëmm ji limité woo ci cër yi li mu mën a def noonu la xel mi limité woo léeg nag doomu aadama day accepté limitation boobu ci cër yëpp ba mu des xel mi mu ne ñu bari ci nit ñi def ay observation ak di jàng ci àdduna beeg ci mbir yu bari li leen di tànk mu ne fi seen limite yem seen ñàkk xam la ca gannaaw loolu foofu noonu dañ koy daal di jàppee loo xamante ni ay certitude la certitude yi mooy lan mooy adamul ilmi bi shay laysa ilman bi adamihi mooy ñàkk xam dara teg ko danga xam ak ñàkk amam léegi ñoom nag science bu moderne bi lépp lu mu xamul rek mooy loolu amul mooy lu ñu mënta xam mooy loolu amul lu ñu mënta xam mooy loolu mënta nekk lu ñu mënta justifier mën koo utal ay tegtal ay firnde ba wan ko wane nu mën a nekkee loolu mi tekk mooy loolu kon mënul nekk parce que science prouvé wu ko bu ko science prouvé wul ci ñaari mbir la mën a dellu ñàkk amam wala ñàkk mën-mënu science ci mën koo prouvé ah waa tëlewu science ci mën koo prouvé ça ne veut pas dire que ne am na man tey boo ma laajoon benn masala boo xamante ni li moo ciy wax ji nekk raajex ma ñàkk la mën a indil tegtal buy wane ni lii mooy wax ji wér tekki wala wax jooja wérul man man maa man maa tële rek samak tële nak doko jël def ko xam-xam ñom nak seenu tële la def xam-xam li boko comprendre ci wax jooju Ibn al-Qayyim wax wallahi da ngay noppolu ci li ngay dégg lu bari tay ci occidentaux yi ñukay wax ci walu science ak la ci aju dem ba ag ci ñeneen tuddé ko la religion du 21e siècle moy science bu moderne bi nga xamanteni dañ ko jël imposer ko nit ñi ci ci ci ci réer gi nga xamanteni ci la yóbbu nit ñi di di ci weddi lu bari ci yo xamanteni mom la diine yi indi nasalullah salaamata al aafiya faddal ya sheikh අන්නාදගේ ඥාන හදිස් වලදී සාරිදී. ඒක එක්කේ කි යාළුවනේ දෙකකින් හොයි පරිදි. නම්. නම්. القدر نعم. حديث وبنجي تيجي كون فادا فادا تسبي وكمان ديك ميري تيجي جاب بي فادا وبنجي. نعم. نعم. نعم. barakallahu baarakallahu fiika ci laaj bi nga laaj nii ndax li tax mooy ci tàmbali bi bi ñuy définir dañ ne qada ñoom lañ wax ne moo jiitu qadar mooy xurujul mumkinat min al adam ila al wujud wifqan li al qada mooy ne day day mbir yi buy génn ci ñàkk am di dugg ci am di réaliser wu di am loolu ñu tuddee qadar am boobu muy am ci réalisation boobu dafay dëppoo ak li yàlla xamoon ba bind ko loolu lañ tuddee qada loolu mooy ñu def différence diggante qada ak qadar am ñoo xam ne defuñu différence dañ ne qada ak qadar benn la ñoom ñaar ñëpp dañ leen di jëfandikoo ci lu jiitu ak li nga xam ne mooy li am après te li koy gën a firndeel mooy li ma wax ci xadisu ubadat ibnu samit ndax xadisu ubadat ibnu samit dama ni bi yàlla sàkkee inna awwala ma xalaqa allahu alqalam qala lahu uktub qala ma uktub qaala uktubil qadar ma huwa kainin wa ma sa yakunu ila al abad kon loolu li muy tekki kon mooy lépp li nga xam ne xalima bi bind na ko qadar la ko tuddee tuddee ko qada kon loolu dalil la ci dëgëral waxu ñi wax ne qada qadar amul différence bo amee différence mën nañ ko tudde différence istilaax farq istilaax ndax fi istilaax léeg-léeg dañ teqale ñaari baat yoo xam ni ci istiamal ci texte yi amul différence lu mel ne kalimatu fiq fiq boo ñëwee ci alquran ak sunna moo xam-xam ilmu ñooyam fiq waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qalu ya shuaybu ma nafqahu kathiran mimma taqul fiq xam-xam mais bu dee ci istilaax dañuy def différence diggante al fiq ak al ilm al fiq dafa nekk faru min furui al ilm mooy al ilm al mutaalliq bil amal al al sharciya al taabudiya naam wal ilmu inda allah yaakaar naa mën nañ taxaw ba beneen semaine insha allah وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم